Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce mardi 23 avril 2024 sur la chaîne des grands événements ginnaaw bi nga xamante di rencontre ministre Ousmane Sonko yu xamante du gouvernement Bassirou Diomaye Faye de nañu foofu ci printemps 2024 Manamoui muy aussi du FMI Fonds monétaire international ak Banque mondiale foofu ci États-Unis pour présenter ji li nga xamante ni projet pour ñu wut ay koppar yoo xamante de moom la ñuy doxee rencontre à mille questions la ginnaaw ki nga Abdourahmane Sarr Cheikh Diba qui di Biram Souleye Diop ak kii secrétaire général du Sénégal Fofotier Amérique dans di nañuy rencontré kii nga le président de la République Macky Sall ginnaaw bi nga xamante FMI ak Banque mondiale dafa ne ndaw Ousmane Sonko yi nañ dem xolaat li nga xamante moy sen projet ñu déllu ci waat ginnaw lool nak dajé nañu ki nga xamante moy le président sortant son excellence monsieur Macky Sall ginnaw bi nga xamante ne dafa nekkoon fofu en mission ci li nga xamante moy poste bu beesam en tant que envoyé spécial 4P dal di dajé ki nga xamante moy président Macky Sall en tout cas ki nga xamante moy lance na gañi Sakho nekkoon fi ex DG de la de l'ONAS ci régime Macky Sall ak ki nga xamanteni moy Cheikh Omar Diagne ñom dal dañu indi ñëw bu baax a baax lu tax di Abdourahmane Sar ministre des finances de la coopération et du plan wara dajé ki nga xamanteni moy Macky Sall en tout cas kii di Lansana Gagny Sakho ak Cheikh Omar Diagne ñaawlu nañ ko torop en tout cas suñu sukkandikoo ci nouveau ministre bi nga xamante ni moo yor économie plan ak coopération bu Sénégal ci gouvernement Ousmane Sonko régime Bassirou Diomaye fay bi ñuy participer ci benn réunion significative foofu ca Washington muy capitalu États-Unis jëmale ko ci cadre bi nga xamante ni tey moom la ñu sukkandiku amal lii di assemblée du printemps jëmale ko ci ay fonds monétaire international di FMI ak lii di banque mondiale kii di Lassana Gagny Sakho ak kii nga xamante ni mooy euh, Cheikh Omar Diagne dañ ko daal di ñaawlu luñ ko en tant qu'envoyé spécial de ko ci pacte bi nga xamante ne moom Paris pour les peuples et la planète Mouy 4P qui dit son excellence le président sortant du Sénégal Macky Sall donne li nga xamante ni modérateur bi jëmale ci rencontre bi nga l'ancien président Macky Sall dafa profiter wu jëm ci occasion boobu pour présenter officiellement li nga xamante nouvelle autorité sénégalaise de jëmale côté communauté internationale bi ba noppi daal souligner li nga xamante ni benn continuité de ko ci renouveau politique bi nga xamante ni réew mi ba tey suñu sukkandikoo ci li nga xamanteni moy délégation sénégalaise bi nga xamanteni dañu souhaité woon en plein succès daje ki nga xamanteni moy président Macky Sall di le ministre Abdourahmane Sarr Cheikh Diba ki nga xamanteni moy biram Birame Diop ak le secrétaire général du Sénégal bi nek fofu ci États-Unis ci ben nouvelle fonction bo xamanteni ne souligné nañ ko jëmele ko ci ay cordialité ak li nga xamanteni moy respect mutuel digënté ko ci ancien ak ñi nga xamanteni moy nouvelle génération dirigeant du Sénégal yi doon également ben moment bo xamanteni de démonstration la jaar ko ci cordialité sénégalaise bi nga xamanteni ni envoyé spécial bi di Macky Sall mom ci bopam mo présenter li di délégation bi comme benn nouvelle autorité sénégalaise bo xamante tay dañu sukkandiku ci ben délégation bo xamante ñom sen bop dañu souhaiter benn plein succès jëmale ko ci nouvelle fonction yi nga xamante tay suñu sukkandikoo ci réseaux sociaux yi wala ci li di Twitter ci compte bi nga xamante ki kii di Abdourahmane Sarr di ministre de la coopération et du plan samedi bii ñu génn le 20 avril 2024 mettre na ko jëmale ko ci déclaration bi nga en tant que nouveau ministre de l'économie du plan et de la coopération amul ben yon bo xamanteni amna yenn membre yi nga xamanteni moy parti Pastef ñom ci seen bop exprimé nañu ouvertement li nga xamanteni moy mooy seen indignation ci li nga xamanteni moy Twitter mais luñ ci sukkandiku quand même lu upp ci 80 jeunes yo xamanteni dañuy lâché li nga xamanteni moy assassin bi jaarle ko ci li nga xamanteni mo gëna gën jëm ci ay milliers d'individus yoo xamante ni tey dañ leen emprisonner woon te amul ben yon ay nit yo xamanteni tay ay centaines de milliards ci suñu ay xaalis dañ ko daal di sàcc ba nopi daal di wax ci li nga xamante ni mooy ay salaamaalek jaarle ko ci ben monstre bo xamanteni tay dafa doon juste ko xamanteni ko incapable la jëmale ko ci li nga xamanteni tay suñ ko nargee dina jëm ci ay victimes yo xamanteni kiko indigné du ken kudul ki nga xamanteni moy la Lassana saxo dal dina jappé dal Macky Sall ben genre monstre bo xamanteni amul ben yoon ki di Abdourahmane Sarr ak ñom euh, Cheikh Diba waron na ñoom ay salam alek yo xamanteni dañ ko def ak ki di Macky Sall waaye la Gagé saxo jappal ni ko expérience Macky Sall motax tay ki nga xamanteni moy FMI dal di débloquer lu tollu ci 260 milliards dal di koy lebal le nouveau régime ndax ndaxte ñom amuñu won compétence projet bi baaxul woon nuñ ko formuler baaxuloon woon te Olof Ndiaye nee na ki jiitu ci néeg moo lay wax naka ngay toogee te président Macky Sall moo leen jiitu ci néeg bi moo tax mu dimbale leen wax leen naka la ñuy toogee donc tey en tant que Lassana Gagny Sakho ex DG bi nga xamante ne mooy ONAS ci éjuru lii di Macky Sall yenn privilège ak yenn bien yi soo ko amee tey yaakaar naa ni war nga gërëmee li nga xamante ne mooy Macky Sall li nga xamante ne joxoon na ko ba tey nga koy dippee li nga xamante ne mooy moos su dee am nay xaalis yu ñu sàcc ce que yow waruñu audit li nga xamante ne mooy ONAS bi nga doon gérer ba tey jii amul audit Yo xamanteni jaar na fa yaakaar ni balaa nga nan nam nam da nga fay ne di ko Olof Njaay di waxe bala nga nan nam dang fay ne batay suñu joge ci ki nga xamanteni moy la di Cheikh omar Diagne di benen allié notable ki di président nouvellement élu di Bassirou Diomaye Faye mom ci bopam ci benn li nga xamanteni moy commentaire laconique la sukkandiku ci publication bi nga xamanteni le ministre des finances de la coopération et des plans di abdourahman Sarr exprimé ko ko ci désolation ginnaaw bi nga xamante ni lépp loo xamante ni liir na ko ci muy benn commentaire boo xamante ni dafa gàtt mu semble ko lu mu illustré ak ben malaise digganteem ak ki nga xamanteni moy association publique ak ki nga xamanteni moy ancien chef d'état du Sénégal Macky Sall avec li nga xamanteni moy le nouveau gouvernement du Sénégal batay ci réaction Bobu mën na doon lo xamanteni dañ koy interpréter jëmale ko ci ay contexte yo xamanteni lepp luy tension politique récemment fi ci Sénégal dañu wara a warna war marqué ay manifestations yo xamanteni ni 2021 et ba 2024 ñoo entraîné ay nit yu bari dal ci ciy faatu ñi ñi dal leen emprisonné ci kasso yi y compris ki nga xamanteni moy Cheikh Omar Diagne fait Bobu nak mo tax tey ki nga xamanteni mooy l'ancien président de la république Macky Sall daal di impliqué wu ci ay controverses yo xamanteni dañ ko fondé wu lii li nga xamanteni manam moy mandam mandaam mu daal di participer ci ay événements officiels yoo xamante ni di nouvelle autorité di Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñom ci seen bop dañu wara percevoir comme li nga xamanteni moy ben benn problématique jaarale ko ci ñen ñi nga xamanteni ay acteurs politiques lañu ak ben parti bo xamanteni moy population bu Sénégal en tout cas muy ay cadres yo xamanteni ki di Cheikh Omar Diagne ak euh, Lassana Gagny Sakho ex DG ONAS après le dem rejoindre li nga xamanteni moy parti passé. Dal di Nakaru ñaawlu li nga délégation Ousmane Sonko bi demone fofu ci FMI pourquoi rencontré le président de la République Macky parce que président de la République Macky Sall mo leen ci bu bi FMI revoir copie ndaxte lu tollu gouvernement Sénégal nga dem ba FMI mu wan ne que projet bi nga tëgg projet bi nga bind FMI bi nga ko xoolee xam nañu projet boobu baaxul du projet buy doxal société du projet boo xamante ne tey mën na indi ay avantages jëmale ko ci développement économique ci sa réew donc je crois que ki njëkk a laaj maanaam mooy ñi nga xamante ni ñoo bindoon seen projet alors que saytuwuñu projet bi xamuñu projet bi naka lay doxee ñu yóbbu ko ci FMI Macky Sall nag bi nga xamante ni def na 12 ans de règne occupé bépp force ba nga xamante ni bi mu jógee fii ci Sénégal lan lañ ko njëkk a nommé maanaam mooy envoyé spécial lii di 4P mu mën fa il y a que des petits sessions, il y a qu'il y a des petits éphémis, il y a quelqu'un qui assemblée. Euh, général Nations Unies qu'on Koko en tant que sénégalais Boulen Fatih, Macky Sall est l'ex-président du Sénégal mais Bassirou Diomaye Faye n'est pas plus sénégalais que Macky Sall Ousmane Sonko n'est pas plus sénégalais que Macky Sall il est sénégalais il le demeure et il le restera donc lépp pour l'avantage de son pays pour son peuple et non pas pour le gouvernement donc il le fera pour son peuple je crois que le président Macky Sall a agi en tant qu'un vrai patriote a agi en tant qu'un homme d'État a agi en tant qu'un diplomate a agi en tant responsable donc je crois que secours bi nga xamante ne indil na ñi nga ministre Ousmane Sonko je crois que c'est quelque chose de légal pour tout un Sénégalais donc kaddu yi ngeen di yëkkati dafay allégé waat lii di kaddu haine day allégé waat lii di vengeance des allégé waat lii di de lii di méchanceté alors que pour développer un euh, une euh, un pays on n'a pas besoin de la méchanceté on n'a pas besoin de vengeance on n'a pas besoin de haine on a besoin ay euh, xol yu laap xol yu pire xol yu sell am jéggale am jéllale comme yàlla suñu borom moom la ñuy ton ci aduna ba keroog yowmal xiyaam ku ci nekk di sàkku yàlla jéggal la donc ak lu mën a am ci aduna ci rivalité politique bés bu ngeen xasee ba excédé li nga xamante ne pouvoir la première des choses maanaam mooy lan mooy ngeen indi tolérance ngeen fàtte li nga xamante ni amoon na fi ngeen xam ne aska méfait politique moo leen ci dugaloon mais tay da ngeen war agir dans l'intérêt du peuple sénégalais et dans l'intérêt du peuple sénégalais c'est d'aller tous ensemble vers un Sénégal uni un Sénégal prospère pour se développer indi xaj le régime de Macky Sall passé et le régime de Bassirou Diomaye Faye ils sont des Sénégalais et tout ce qu'ils sont partis chercher faut nga xamante ne FMI c'est pour le développement du Sénégal c'est pas dans les poches de Bassirou Diomaye Faye ni dans le régime de Ousmane Sonko et de son gouvernement c'est pour le Sénégal Cheikh Omar Diagne tu es Sénégalais la Sénégal à est Sénégalais Macky Sall est Sénégalais euh, Abdourahmane Sarr est Sénégalais Cheikh Diba est Sénégalais donc nous avons suñu et ci intérêt Sénégal Nous ci lan ngeen ci war a indi indignation mel que dafa am ñaari Sénégal le régime de Bassirou fait avec ak Sénégal comme xamanteni le régime président sortant en tout cas xoolaat les sen copie xoolaat sen ay déclaration le Sénégal n'a plus besoin de ça opposé wu ngène pendant presque 12 ans ci régime Macky Sall ça y a la ci bon pouvoir bi en tant qu'un proche collaborateur du président Diomaye Faye en Cheikh Omar Diagne je crois que le mieux c'est d'aller de le conseil comment il doit faire pour